xam nga ma maa ngi nii sax di bëgg jëlaat beneen audio tegal naa leen audio ku ne ku ne euh, ku ne tante ku ñu ne tante pas tante mais tante Adji Sarr moo ko jox pour mu yar ko trois mu trois trois mois Adji Sarr lëj mu delluwaat ko Kaolack c'est bien les gars laaj leen kookoy papaam yaayam kat la woon dégg nga non jour tudd ba mu ñëw xale bi suñu loxo yi day juddoo. dégg nga ba mu ñëwee. waaw mu ne ko aji. xaaral may ko aji. dégg ko aji ndeysaan dem si yàlla sama bi gaañu jour korité aji gaañu na daaw. yàlla na ko yàlla yërëm. xale nekk euh, maye la nekkoon dëkk ñoom Alaye Cissé. dégg nga benn maam lañ na nag ay nit. bu ës. ba xale yooyu dañoo nag bàjj bi. waaw génn ñu nañ génn abal dootuñ la dundal nañu dëkk bi. nañu abal dëkk bi.

dégg bu mag a mag a bu mag nekkoon def toog foofu. koy gis chaque waaw après mu nekk déggatu ma ko gis dara ñëw fi ginnaaw Mm-hmm. léegi nag après massage bi ba mu xamee góor nga ak bu xamee góor tey ak a yàgg <laughs> fi mu terminé sax dafa doy mais yéen gis ngeen xale bi yow bu dee kii mooy Adji mais elle bu dee kii mooy Adji parce que gars yi tamit photo rek teg fa mais gars yi Adam Adam xoolal xale bi David Sow mais xoolal génération TikTok bi. waaye mais xale bi sénégalaise la taay fin la kii kan moo mën a mucc ci ñoom ci moom ah gars yi kii bu lay maasee gars yi am na nu muy demee gars yi ah xool leen ko xool leen kanam gi ki ko xool xam ne taay fin la